Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëpp dañ agréer ndax mbokk yi alquran mi ñuy chaque jour bu ñu jàngee alquran mu ngi naan ñu yow ma yow ma yow ma boo jàngee suratu zalzala wala suratu iza zulzilatil ardu zilzalaha wa axrajatil ardu asqalaha wa qaala al insanu ma laha yàlla nee na am na benn bis buy ñëw tamit ngi sunu kanam nee na dañuy jékki-jékki rek suuf si xotteeku étage yi màbbu garab yi buddiku ñu naan lan moo xew yow ma wa qaala al insaanu ma laha su ko defee suuf day génne mbooleem li mu yoroon ci biir goq génne ko or beeg laj lépp loo xam ne nit daf koy soxla wata muy nekk ci biir suuf suuf da koy génne mais doomu aadama dina dem ba lim loon xëccoo ci àdduna gis ko teg ci bëtam kenn du ko ko aaye mais du ko sañ a jël ndax tiitaange ak ci wàccaayu dem yowmal xiyaam nga xam ne ci lay àddunay tukki moo koy tiital ba nit ñi sax kenn du ñimee wax suuf lan moo xew waaye dangay gis nit day gis benn mbokkam naan wax xoolal insaanu maa laha mais suuf lan la xewle kon mbokk yi loolu ñu bàyyi ko xel bu baax ñu bàyyi xel ne mbokk yi ci kaw suuf mii ñu nekk suuf jaam la comme ni ñu doonee ay jaami yàlla te suuf tamit mission lay dox mbooleem lu nit di def ci kawam bis dina ñëw suuf dina ko nettalil yàlla yow ma yawma izin tuhaddisu axbaaraha bi anna rabbaka waxaalaha kon mbokk yi loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ñu bàyyi ko xel bu baax a baax te delloo siwaat xel démb rek maa ngi koy wax ci benn conférence ma ne euh, waa Touba daa mel ni message su Sëriñ Muntaxa ñoo ngi ko tàmbali dégg ndànk-ndànk mu mel ni léegi baas yi boo ci demee da daan am ñu ne lay jigéen ñi sañce woo rek waaye léegi baas boo dem rek da ngay gis sañce diine moo fa yëpp dañuy muuru sellal daal maanaam ci gàttal daal sellal te mbokk yi buñ ne baasu alquran alquran la ñuy jàng nga ñëw jël sa bopp bi teg ca loo xam ne moom kenn xamut lu mu doon xam ngeen ne mbokk yi wuyu si woo alquran kon sëriñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te xam naa jigéen ñi kontaan nañ ci ndigalam bi bëggoon nañ koo bàyyi waaye xamuñ nu ñu ci ajaare ba bàyyi ko waaye kon comme ko sëñ bi dégle na ko rek dañ ciy kontaan lool macha allah jërëjëf. ay ndeyloo moo ci toog ñu tàccul ñu ndeyloo bu baax a baax a baax nañ ma ko tàccul tàcc yu xumba xumb ma dégg. ku gëm bamba na ko tàcc ku gëm bamba na ko tàcc ku gëm na ko ku gëm ku gëm akay tàccal ma ko mu ñëw ayo nday nawal osuwa sama kandelo sasi aman sasio layloo nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na assalaatu imaadu diin nee na kenn ku tiye diine ba màggul ci suuf nee na mooy assalaat mooy julli mbokk yi bu ñu xoolee suñu baas bi ni ñu ko sampee nii lan moo ko téye ci ko ba daanul mooy tànk yi ñu ko defal mais bu amatoon tànk ci suuf la jëm kon julli tamit noonu noonu la doonee te alquran nee na inna salaata tanha anil faxshaai wal munkar nee na kuy julli de yaa day dox sa diggante ak lu bon ba tax doo ko mën a def léeg-léeg sax ma ne kuy julli dooleem sawara gars yi daal na xanaa koo bàyyi fa waylu musallin ma leen ñooñu kat dañoo julliwul ndax allasina an salaatihim saahun la yàlla wax kon ñooñu julliwuñu waaye mbokk yi bu ñu nee kuy julli dooleem sawara loolu neex na dégg ndax sama mbokk jigéen yi bu ñu leen laajee ñoom ci togg yi togg am na ci togg boo xam ne moom julli ñoo bokk tulandoo ku ko xam ne yëkkati sa loxo ma gis waaw ci togg yi jigéen ñi togg am na ci togg boo xam ne moo julli ñoo bokk tulandoo ku ko xam ne yëkkati sa loxo mooy lan Moussa nee na ma yaasa déedéet yaasa lay sa yaasa ah salaat mbokk yi kan moo mos a gis fu ñuy baaxal salaat buñ ne tey jii waa kër gi dañuy togg salaat bu nekkee moo xam lu ma la àndal moo xam ginaar lay àndal moo xam jën la ak lu ma la àndal ala kulli xaal daal mboolem ñi muy àndal danañ leen jaarale ci biir sawar bu dee dees na ko saaf bu dee ginaar dees na ko saaf bu sa dees na ko saaf ak lépp muy àndal salaat moom ñu raxas ko mu set aj ko ci kaw ne ko toogal xaar gaa yi ñu lakk leen ngay àndal ñoom affaire bi doy na wara ah. kon asalaat imaadu kii ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na li ñu njëkk a laaj yowmal xiyaam nee na mooy asalaat julli moo taxoon Sëriñ Tuubaa julli ci biir géej ah mbokk yi ñu bàyyi ko xel bu baax am na ab jullit moom ah, maam Faati Touré na ñëw moo ci topp maam Faati Touré maam Faati Touré suratul asri la ñuy tari bu paree day njaxat njaxate ak Matar Gassama ak eh, waa kay waa ñaar ñoo ñooy ñëw. Bonsoir, je m'appelle Mame Fatou Touré, c'est ah. sabri nday njaxat jaxate ak Matar Gassama Bonjour, je m'appelle Matar, ceci est participation. Banda, moi.

merci madame. merci Ndeye Ndiakhate. merci yéen ñaar <laughs> ñu tàcc leen bu baax euh, macha allah euh, xale yi daal wax dëgg yàlla ñoo ngi jàllale ay message yu am solo ndax jàngale nañ fi ban ndox moo mën a jàpp. ñu ne ndox mu mën a jàpp nag boobu moom boo ko bëggee tënk danga naan ndoxum kase rek maawul la boo ne ndox ak ñu ne déedéet baaxut kon ndoxu kase moo mën a jàpp. ok lool boo ko bëggee xam rek mooy ndoxum kase kon ndoxum kase daal moo mën a jàpp waxal nañu tamit waxtu julli yi ak bis bu ci nekk ñaata julli la ci yàlla farataal ak julli bu ci nekk ñaata raka lañ cay doxal aywa nday nday caaraloo omi jang wala nday caaraloo

aywa doxal kii kan la aywa ndigal ñoom ñaar nañu ñëw ñu tàcc leen bu baax a baax ñu daal di ñëw Mbacke Lo Ami Collé Samb aywa oustaz Sëriñ Sohaybu Lo ñu ñëw yu fii ci ci ci base bi Ami Collé Samb aywa ni mooy njëkk a ñëw bonsoir sarabel Ami Collé Samb soo ama

Rama Padram Bakalo Rashina

macha allah xale yi moom ay yor Cheikh Bara Diop soxna Astu Gueye Modou Ndiaye Astu Diop soxna Ami Baye Ibrahima bu ñu ñëwee jàngal ñu arkaanul islam ay waaye Yeah. าย leen ma xale yi mbokk yi tàcc yi xumba xumba ku tàcc yàlla na nga dugg aljanna ku fa tàcc bi nga xumb yàlla na nga dugg waaw waaw kay nanoo yoon Bamba day nanoo yoon Bamba day nanoo dayloo naagaloo dama jël téer lépp mbax bu ñu mbaa ñoom may ma rek di gogal koo xam na bëgg nagal laa jeg alal na ku fit na daa di jóg soobu mën na daa di jóg soobu mën na daa di jóg soobu mën na daa di jóg soobu mën na daa di jóg soo bam des Bamba moo rey yi mbir ma ne tëbbul tëbbul génn ma ne tëbbul tëbbul génn ma ne tëbbul tëbbul génn ma ne tëbbul tëbbul génn ma ne tëbbul tëbbul génn ma ne tëbbul tëbbul génn ma ne tëbbul tëbbul tëbbul tëbbul tëbbul tëbbul tëbbul tëbbul naa ñu wax wax leen ko rek ba ginnaaw bi ma yëgee ah jërëjëf man waa Kër Sëñ Saliou yéen a mën ko jërë ngeen jëf waaw lii la ci baax waaw kay daa am benn borom xikma nee na euh, ay xale boo leen di woo di leen nga foog mbaa nga niiru kuy foog moo tax nag parce que léegi-léeg ñu dëggal xale yi waaye nag ñi koy sunu naan bu baax ñi nag incha allah ñi mooy ñan ndey ak ndey màgget tey ah gars yi sopp nañ sëñ Saliou de dinañ ci sañaan ci ngeen de waaw voilà deux cent mille na trop aywa ma ñu déglu xale yi kon bismillah waaw léegi ñaari xale yi ngeen gis nii li ñuy jàng mooy siira Cheikh Ahmadou Bamba mooy kan mooy Serigne Touba ci ak dundam ci tënk ñu déglu ñaari xale yi ndax lu am lay doon bismillah Kama permet ma gain, ça c'est yi ak sa ñu tàcc leen bu baax a baax di ko tàcc sa nijaay bu tukkee yàlla na ñibbisi ko tàcc rek sa nijaay ji tukki yàlla na ñibbisi balaa ngoon ku ci ñibbisi ku ci tàcc sa ñibbisi ku ci tàcc sa ñibbisi ku ci tàcc sa nijaay ñibbisi ñibbisi yaay ñett téeméer ginnaaw dund ci gàddaay bi lan am na ci yonente bi jóge woon Makka dem Madina lan mooy sunu yonente bi bi wa saxli bi wa sallama ana na lañ ko denc mu fi doon des nee na boroomam moo ko fi yónni woon mi ñu xamal liñ war kan mooy boroomam nee na boroomam mooy mbokk yi ñu tàkk xal yi dëgg yàlla seen message bi am na solo li muy jàngale mooy way jur wu ne war xam jéem ak njaboot ci mi nekk mu leen di yóbbu ca daara kii dafa ñëw na yaay laa judd fi yaa dina ko yaa ngi judd 2007 ne waaw ci gàddaay bi mu ne lan may gàddaay ci mooy mu ne at muy sunu yonent yi jóge woon Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer